dana ci am loo xam ne nag fii féete ci ci jëbi boo ko téyee nag yàq nga ko mënatu la jë def nenn mënatu baj baji ba ko defee yàlla moom jekku ne sa naas waxtu wu ne waaye bu xaar ba bu xaar ba du ko jàpp dafa jàpp jox ko ne yaa rabbi bu mën a sën bu mën a tooñ bu say-say waaye maa ngi tuub de baa ngi nii aw fenn fu ma la daw aw ma fenn fu mën a làqu yow yàlla bu ma la doon làqu ci yow laa lay su ma la doon làqu ci yow laa lay te it ma kenn ku dul yow te yow da am jaam yu bari yu bokkut ak man am nga jaam yu bari yu dul man te aw benn bur bu maa ngi lay ñaan ñaanut miskin di la teraxlul teraxlu ku tedd bi di la ñaan ñaanu ku ragal ñaanu koo xam ne kii fërawal na baatam ñaanu koo xam ne kii takkalal na la bakkanam bi suuf ñaanu koo xam xolam waaw koy noonu ñu la si waxee yàlla subhanahu wa taala ko wax say soxla ko boo yi ba noppi nag boo ko kañee moom yàlla sarax lu ko ba noppi tudd say bàkkaar xam nga loo ciy tega jéggulu bàkkaar yi jéggulu bàkkaar yi tuubal boo ko defee ba ba am diir bu yàgg ah baax na nga jóg dem dana am lu ci xol bi rikk waaye da ngeen ko seet rikk na ngeen fexe ba yow njël ngeen jàpp dugg ci barab boo xam ne jabar néew fa doom néew fa kenn néew fa mbaa ko fa ne ma ngay nelaw te kat njël da cee gën a neex rek waaye du ci charte nga kàbbar julli ñaar rakkaat teewlu yàlla bu baax a baax a baax a baax teewlu yàlla ba mel ne da koy gis nga julli sëlmal toog yàlla wax ak moom wax bi mel te muy dëgg ci yow te lañ koy wax lépp nga nar ko te fa jógee nga jëf ko nga def ko ñetti fan consécutif ngeen seen baxam su ko boo amatee soxla boo amatee soxla bala ngaa dem ci jabar ba mooy yéen sax bu ngeen amee soxla da ngeen dem ci jabaram da dem ci sëriñ tar bu ngeen amee soxla fu da ah, ngeen amee soxla da ngeen amee soxla boo amee soxla dal bu lërante dalal di jublu ci borom asamaan ak suuf rek mu wóor yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa ida daani yàlla nee na sama jaam ñi suñu ma la laajee man day ku jege laa man day ku jege laa ël ko waaye boo amee soxla bala ngaa taal sa wata ji naa damay dem faas Touré seeti Abdoulaye Touré rik ko waaye bala mu la cee fekk am na ku gën a jege Abdoulaye Touré te boo demee ci ab bés bi nag lay dem xanaa da nga ko bëgg a def saf ci aaw aaw saf ci mbët saf ci aaw aaw saf ci mbët soo saf ci mbët benn yoon rek waaw soo saf ci mbët benn yoon rek saf ci aaw aaw saf ci mbët loolu da yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Seydina Omar fekk booba Seydina Omar di ko tàggu umra ji mu ne ko bu leen ñu fàtte ci ñaan te itam bokk na ci xeetu ñaan yi nga xam ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ñaan yi ñu faral di nangu ñaan gu la sa mbokkum jullit ñaanal ci barab boolam nekk loolu bokk na ci ñaan yi ñu yaakaar sa mbokkum jullit nekk fa xam ne nekkoo fa mu tudd soo tur ñaanal la bari nga bokk yàlla nangoo kon sa mbokkum jullit mën na laa ñaanal waaye nag ñaan la sa bopp sa mbokkum jullit ñaanal la du dëgg tey ñaan ñu war na def ak alquran ak sunna du dëgg waaye faw rek ak déggën bokk ci faw pettaw bokk ci sëriñ sëriñ sëriñ def ay jaaxle di di di laaj ay weexal rek dén sëriñ di wax wax ko soxla من من الاستخار الاستخار سبحان الله مو الاستخار الاستخار بعد بيت بكم لا من مسد لمي تكي ندك خمي الاستخار لمي تكي استخار استخار مصدر مصدر له مصدر استخار يستخير استخارة ما أتن له ما أتن له يلا هم لا يلا ده bokkul ak dañ kumpa li yàlla denc ci ëllëg wolof day day day day yëpp dañ kumpa yàlla denc ci ëllëg su di ko tànnloo yàlla listixaar yonent bee ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na ab jullit bu amee mbir mu yitteel mu bëgg a def na julli ñaari rakka jàng ñaan goog gi allahumma inni astaxiruka bi ilmika واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم بنان قال يا يلا ما نجلي تنلو تسا خم خم با لو خي تنلو با ام لي بغا ديف تخمو ديف دي اك ما دي مسي گن با ام كير بو لي ياغي بو كو جند نا واتا بو لي ياغي بو كو جند نا دا ام اسخنا ما ام سخنا فو بغا تك ام نا ام خالي بو جيجين بو خاني موم لا بروفيس نغا بو كو تك تخمو ديف baax na wala góob baaxul ngay dem jàpp ba sell di li ñaar rakkaat daa di ñaan sa borom yàlla yow yàlla maa ngi lay tànn loo ci ba xam-xam ba di la dagal loo ci sa kattan nga di la ñaan ci sa ngëneel lu tedd la yow xam nga te man xaw ma yow man nga te man mënu ma yow rek yaa ci xam li boog li feeñ yow sama borom yàlla su fekkee ne mbir mii may bëgg a dugg daal di tudd soxla sa bu dee kër la bu dee ak wata bu dee xale bu jigéen boo bëgg a takk mun ci mën a doon mbir mi may dëgg dëgg su dee gën na ci man ci sama tey ak sama ëllëg ci sama wàllu adduna yàlla nag ma ko dogalal defal ma ci yiw yembalal ma ko su fekkee mbir mii may bëgg a dugg nga tuddaat ko gënul ci man sama tey ak sama ëllëg ak sama wàllu diine ak sama wàllu adduna kon yàlla nag ma génne mbir mi ci man te nga génne ma ci mbir mi te féewale ma ak mi te génne ma cee lay aw yiw te kontan woo sa xol ñaan googu yi kenn du ko wax ci wolof ndaxte la jóge woon ci diggante ñaari turu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko war a garbo arab la woon moo ñëw ci téere diine bi ñëw na ci risala ñëw na ci minhaajul muslim la voie du musulman ñëw na ci téere yu bari ñëw na xadis yi wax na kon boog ñaan googu da ngeen koy jël di ko istixaara am maa dem ci sëñ la ñu lay nax di fanaanaan bi subaam lay wax lay wax ku ku ñuul kee ku ku ku yar kàcc rek fenn rek boo paree nag mu daal di dugg weexalam nag tàmbale ci ah, dëgg yàlla ah cinquante mille de laa fi yor ngeen tàmbale di waxaale mel na ñaari commerçant ñaari jilo kenn xam ne sëñ bi du jula de bayit cinq cent mille ba cinquante mille franc xam ne si di joxut dëgg day tappale rek mu ngoog waaye li di gën a doy waar mooy sëriñ xaalis bi mu lay laaj ndax nee na daa bëgg boo fa jógee mu wer dal la wala mu defar la leen lay defal waaw bi ku koy faj ah yàlla bismillah yàlla mu koy faj ndax daa sëñ bi daa gisee moom ba yàlla na ko ñoo jox naa ko faj ah waaw kon daa xaalis muy laaj la xaalis muy laaj la kon li ngeen fi waxoon ne sallallahu alayhi wa sallam ku lu yàlla dafa nangu nag moom ñuy lekk lew naa bisimilah jàmm xam ngeen ni loolu ma de xam ngeen ni loolu baax la xam ngeen ni yàlla bu sell buy jaamu yàlla nga muy sa mbokk la sax muy ab jaamur bu fa mbokk waaye nga defe rek mun day wax dëgg yàlla bëgg naa boo toog a def sa borom nga ñaanal ma ci nangam ak nangam nga wax ko ko mu ñaanal la ngir yàlla xelam demul ci li mu lay laaj ñemewu ko xalaati ko xam nga ne bokkut ak a boo xam boo ñëw ñaan la jox jox ma cinq cent xam nga ne daan la ci xamul daan la ci yurul daan la ci mun loolu lii da ngeen ci yeewu te yonent bi xam ne ki da ngaa dem ci xamkat ndax du ñu wax lay wax nga gëm ko wedd nga lañ wàccee ci Muhammad bu ko defee kon yow jullit bi boo amee soxla bu la ci loolu fekk boo amee soxla xam nga nooy def da ngay jàpp ba sell yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man tawaddaa fa asbaga alwudua ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا يعني من أنا كيف كنا جاب nga jotal njàpp ma jàpp njàpp mu jot mu tooy julli ñaari rakka matal julli ga taxaw yi mat rukkoo yi mat sujjóot yi mat nga ñaan yàlla la nga ñaan yàlla dina la ko jox tey wala ëllëg kon nag boo amee soxla rek dalal bi wujji sa borom yàlla demal jàkka ja jàkka ja ak passeport moo gën a jege demal jàkka ja li dina wax ni du gën a wóor danaa li ci wóor jàkka yi demal jàkka ji bu jàkka ja sareet yow sareet yow ci nga dëkk sax demal sa néeg demal sa néeg demal fa laat rek jàppal ba sell xol bi na ci yàlla nekk nga wéetal ko mu ngoog yonent bi wax na ci beneen xadis boo xam ne Abu Saïd al Xadri moo ko solo radiallahu anhu mu ne ma min muslimin يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث imma an yuaddila lahu daawatahu wa imma an yaddaxira lahu wa imma an yakuffa anhu min asui misliha yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam amul benn jullit buy ñaanu ñaan ñaan goo xam ne bàkkaar nekku ci waaw da ngeen sàpp bi de ñaan goo xam ne bàkkaar nekku ci xoolal sëñ bi ku dem lee bi nga ñëw toon di ko ñaan la da ngaa teg kees gouverneur bi laa dénk kees nga sàcc ko waxama rek waxama rek sëñ bu bu bu bu at seeru ñëwee ci boo xam daa tëj kees ne ko sëñ dañuy bëgg jàpp daal dañuy bëgg a jàpp dañuy bëgg a yóbbu kasa ba ah waaw loo def xaar nag na loo def muy wen muy wetwatal ak di weng wengal di wetwatal ji ji ji ba ay li yoon daal dañu maa dénkoon ak kees ak ndogal dal ma ci génn ñu mu dogal dali ci xam nga lu mu def dafa noose dafa jënde wata tabax ko kër tagg ko jàng ma kees Sénégal li fi nekkoon lépp jeex na lépp yaa de indépendance la kenn xamul ñaata boîte lañ ci taxawal lépp fay ci banque yi jeex na ah, ba ba société yi mag yi nekkoon daanu nañu ñu nga yëpp dem sëriñ boo ci xam ne bii boo ci xamoon ne bi def na dam war boo xamee ne bi chef de service ñëw na di wet wétal gi wax damaa sàcc kee da ngay téye ca loxo ba na ko yow nag laa doon seet di kën dëg yow li yaa di seet yow yaa lekk alal yi réew yóbbu ko ba ca borom réew bi mu ne gis ne kii sab sàcc dafa ca kaso ba noonu la sëriñ war a def waaye sëriñ bi ginnaaw yow boo ñëwee wax ko loolu amut lu mu lay wax lu may fas yéene daal balaa li def ci xaas bala moo rees mu jot wàllam yëgu leen ne kees yi chef de service yi ak sëriñ yi ngi ñaanal ñoo ko sàcc chef de service yi ak sëriñ yi ngi ñaanal ñoo ko sàcc ñoo ngi nii ñu def ndéel dootuñu dara ñoo suñu dara suñu kër yi yàqu na amul suñu ñu ko defaree amul ñu ko defaree amul suñu amul jiw ñu ñu bàyyi amul suñu dara ba dara booloo jeex dara boo ko suñu dafay ñu lépp na nag kàkk lekk na mu lépp na nga xoolee ak ñaan bu la ko nit dee ñaan loo dangay laaj li muy ñaan ba mu wóor la ne xaraamul ba mu wóor la ne xaraamul yonent bi dane ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم amul benn jullit buy ñaan ñaan goo xam ne bàkkaar nekku ci xoolal sëñ bi ñëw ne la ndaw si daal damaa bëgg nga jàppal ma ko daa bëgg nga tàggatal ma ko ba mu ba ba ba mel ni jël bisimilah jàmm ay loo koy tàggata waa ji aw fas la ñuy tàggat aw fas la ñuy tàggat jigéen kenn du ko tàggat tàggat ba mel ni jël tey boo demee leen lu bon rek nga dégg ci moom ak jigéen day dem di di di di tàggat lu jëkkëram ndax bëgg rek lu lu mu wax jëkkër ji ne waaw te góor te te jabar te te te sëriñ bi it amul mu ne yàlla gutal na naa ko bisimilah su ma la defalee li ma lay defal da nga xam ne maay waaj waaw waaw jën waaye xanaa waaye sàcc kat ñu nga ak ñaan da seet ba xam ne bi ñu lay ñaan loo dagan بين لو حرام ولا قطيعه رحم بس ينت صلى الله عليه وسلم لو دك اك بوكيت نيكو سا نانا اب جوليت دي نان نان غو خامني جي بكار نيكو سا لوي دك بوك نيكو سا الا اعطاه الله بها احدى ثلاثه دا يد كان تي نيت ييف يا نوك دافال بو ديك لو واي دام يالا نغو كو جان دافا ولا من نغو كو دنتال كوكو wala bu fekkee nungul na ko ko kon mu fegal ko leneen lu baaxul lu bëgg dal ci moom waaye rek yàlla du ko neela yàlla dafa tabe yàlla dafa yéwén kenn du talal say loxo yàlla ne yaa allah te yàlla tegu ci musta am musta am kenn ci yéen ku talal ñaar loxo nii ne yaa allah te yàlla tegu ci benn mu teg ci lam koy ñaan fa saafa nga gis ko wala mu teg ko ci wutal ko waxtu ndaxte loolu mooy maslaxa bi léeg-léeg nit dina ñaan lu gënul ci moom wala ñii ngay ñaan soobut yàlla wërta am wax dëgg yàlla nag asamaan suuf ku ko moom ñu soobut yàlla war na fee waaw loolu soobut yàlla wërta am waaye koyet yàlla dala ñaanal faaw mu set leneen loo xam ne ñaanal ko ko te mën naa remplacer li ñu may la fegal la loo xam ne yoon nar na loolu wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee ñi tax ñaana nangu bokk na ci ab jullit na garde biiram bañ cee dugal lu xaraam nee naa leen lekk lu xaraam benn tit bu daganut nit dina ko lekk mu teg ci ñeent fukki fan lu mu ñaan yàlla da ko nangu te kenn ci saxaaba yi saad moo ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ma am lijaaba yonent bi ne ko soo bëggee lijaaba na say na ñam li ngay lekk na lew lijaaba mooy lekk loo ñaan yàlla nangu da lekk lu lew nit ki dina lekk benn tibb bu lewut feeg ñeent fukki fan la mu ñaan yàlla da nangu kon boog biir bi nay dee ci dugal lu lew bët bi dee ci xool lu dagal soo bëggee yàlla nangu say ñaan bul génn ci mbedd bi nii xool lu la soob bul xool mukk lu yàgg yàgg jigéen joo xam ne takkoo ko ci sa naxoon boo ko def boo ñaanee mu kale yaa ko kayal sa bopp del gàdde saw làmmiñ bu ci wax lu yàlla tere bul jëw bul fen bul rambaaj mu ngoog bu ko defee wax su ñu gën a yaakaar ci ñaan njël njël ak boo wooree bay dog képp ku woor boo dee dog yàlla may na la ak ñaan gum la nangul mu ngoog ak bu ñu noddee te liqaama guñu mu ak waxtu bi ba jàq ba jàq ba xol bi tiit bi wéetal yàlla mu ngoog mu ngoog ak jamonoy tukki bari na bu yàlla nangoo ñaan kuy tukki ak jamonoy feebar ki feebar tëdd si loolu feebar bari bu yàlla nangoo ay ñaanam mu ngoog boo dee ñaan tam li nga ñaan na sam xel nekk ak sa xol nga teewlu ko ndaxte yonent bi nee na sallallahu wa sallam yàlla du nangu ñaanu ku ñaan te xel mi nekkul mu ñuy ñaan te it ne la wóor ne boo dee ñaan na nga dogg ci sa pas-pas ni ngay ñaan yàlla rek la ko mën a may bu dem mukk di wax yàlla ak suñu bi yàlla rek mooy maye yàlla rek kay xañe yàlla rek kay def yàlla rek kay dindi te bala ngaa ñaan nga jiifal jéggalu yàlla ndax ndaxte ay bàkkaar yooyu salteel mën naa ga gàllankoor sa ñaan ba di yéen ci kaw asamaan nga jiital istixfaar te nga jiital tam julli ci yonent bi wa sallam mu ngoog boo ñaanee ba àggal salaatu ala nabi sallallahu loolu lépp ci boo toogee yàlla di munaajaatoog moom mu ngoog waaye damaa nekkoon bi leeral juróom benn yëf nga xam ne soo bëggee dundal ci digganteeg yàlla noonu ngay def bu jëkk bi mooy yëg yàlla foo toll bu yëg lu yàlla ba ñaari bi ci laa nekkoon dafa gudd rek te mooy jéeyoog yàlla ak wax ak moom deel wax ak yàlla di ko kañ di ko tagg di ko toroxlul di ko jéggul di ko sant te itam deel ñaan yàlla boo soxlaa yàlla daa dëkk koy ñaan ñetteel ba mooy nga tàggatu ci dëkk ci topp yàlla mbokk jullit yi ab jullit day tàggatu ci jaar ci siraatal mustaqim ñuy tàggatoo ci dawalub welo wax leen na ab welo ci koy door a tàmbali jàng bu fekkee daa bëgg dawal welo bi bu dawalee téeméeri meetar dana daanoo ñaata yoon lay daanu ci téeméeri meetar yi waaye day wàññi ko ndànk-ndànk ab jullit noonu lay mel bu dee door a wëlbati ko ci yàlla waa fas yéene ndigal yàlla yi mu di ci góorgóorlu di ko jëfe ay sereet mu di ko bàyyi day jiw ay jiw yu bari waaye day sax rek bu jiw bu daanoo jógaat mu ngar ndigali saa borom yàlla yi dañ koy xam di ko jëfe tereen yi nga xam ko di ko bàyyi kan nag tere tere yi jëriñ la ndigal yi di jëriñ jëriñ bi yàlla tere ci ay tere bu ci def benn bu ci def benn waaw yàlla moom lépp lu mu tere def ko ba mais nag kenn dina mënumaa bàyyi nangam yàlla yi ñu santaane li nga ci man lépp lépp lépp na nga ko def si demut ni da ko munut aji woo màkka ni fekk daa amoon biyëb da nga amoon biyëb ak yóbbal joxe woo asaka na fekk da nga amoon lu mat misaab waaye lépp loo mën na nga ko def bu ko defee loolu dañ ciy tàgg ci te tàmbalee ci tàmbaliwukaay ba tàmbaliwukaay ba mooy lan mooy nga takkoo ak laab nekk jullit yi ab jullit day fonk laat fonk njàpp te ngaay sell ak njàpp te foo jàppe fu sa fu sa njàpp tëje deesu la njàpp foo jàppe julli ñaar rakka mu nekk rakkaatay lu wudu te fu julli jotee nga julli te jullee ca mbooloo ma boomul ngant la ko mat jullee jàkk ja ca mbooloo ma ab jullit day fokk julli mbooloo mu nekk mu nekk تبرل اي ناسل يب لو خمنا يالي دا لكو سنت كي دي باخ دا من الكور دولي يغيك يالا لغاك دفلي باخ يخلي رفت ما عندك مولم سنتانا يالي يغير كده مولم اي سنة مغدو كبا سن جو سكي ريطان يالو فان لكلي حرام مولم تانا يالي يبال يب سنتانا يدخل يب من جميل يب loolu mooy perd gi perd ci boo bëggee sa digganteeg yàlla ratax te rafet relation bu baax ndax kat ci bëgg a nekk si koy suufas yàlla fii di xéewlee xéewale yàlla yi te di góorgóorlu ci ndigale yàlla yi xam ne ni nga ko mën a misaale borom kër bu am ab surga borom kër bu am ab surga surga bi ni kër gi di taxawaay rek bu xëyee borom kër gi andi ndékki indi kafe goo xam ne bii dañ koy def meew ba mu weex kay indi mburu indi beer ma naan seen bool chocolat ah daal di sandwich lekk ba biiram fees mu raayat ko lam jaaxaan waaye daal di faste kër gi xante morom ma de te li ko kër gi yaa mu lànk mun ko tere di ko ba mun ko sant di ko def li borom kër gi man ci kër gi moo ko fiy def su ma borom kër gi taa taajal ko boole ceeb jën bi ñun ba taxaw ko ceeb dank dank dank bi géwél yi maam di ko yegg bu na ko raay naan ataayam toog jëg ñu digal te li fi borom di bañ moo ko fi def te di ko def bu dee jotee ñun ñu kaay ak salaat ñu xéewloo xéewlu ba biir bi ne moo jaay frigo boobu moom borom kër gi seen nekk dara ma def fii ci noonu yaakaar naa seet sax du nekk de waaw wax leen mu nag wax leen mu nag suuf si moom kër kana ah suuf si kër sans borom yàlla bi suuf si kër sans borom yàlla wax leen ma rek wax leen ma rek borom kër ne xam ngeen ni kër gu mag gi suuf si xam ngeen kuy borom kër gu mag gi mooy yàlla subhanahu wa taala borom kër bu ndaw boo bii nag tey joxe kafe ak meew ak beer ak mbir wax leen ne koy jox yooyu ba mën ko joxe yàlla kon nag ndekete borom kër bu ndaw bi ak jabaram ak doomam ak i surgaan ndekete yàlla leen boole jox kafe ak meew ak ceebu jën ak ganaar du dëgg yàlla moom mii nag nga nekk ak moom ci këram gu mag bii di xéewloo xéewal yi naan ci glace bi lekk ci lekk ci yàpp yi naan ci soow mi saa yàlla si téewoon soow mi moo ko mu nuy def ne yàlla su bëggee téye sax ni ñu koy defe yàlla su bëggee soow ba kenn koy defe day téye ndox mi day waaw waaye ndox mi ñun ñun ren de lañ ko téye ñu bëgg a dee coow laa ñu ne gàñ saa borom ñaata at la ñu tawal ñaata at la ñu tawal te ndox mi mu toll te teewul ba mi waaw saa borom yàlla bu tagale woon ñetti at ñetti at yu wóor ñu bokk jur te te genn ndox wàcc kon li xew ah waaw yàlla moo ginnaaw mi ngi laaj seen ndox ñu di ci am yàpp di ci am soow di ci am bépp xéewal bu ñu bëgg yàlla moom mii kat li mu santaan dañ ko war a def li mu tere dañ ko war a bàyyi yàlla ñu daal dem ci li kon nag ki bëgg diggam ak yàlla rek tax ki bañ diggam ak yàlla mel ni diggante surga boobee ak borom kër boobee xam nga ni muy defa na jéem a euh, euh, góorgóorlu ci yàlla bi di ko jëfe ay feneen mu ko baax loolu mooy tomb ñetteel bi tomb ñeenteel bi mooy dëkk njàngum alquran ak jullit day fonk njàngum alquran te bis bu ne mu ci bokk yéen jullit ñi mbooleem yéen sama kàddu góor ak jigéen ndax ñëpp yéen ngi tàmmante ngeen ngeen jàng lu bokk ci alquran loolu daa war a am ak jullit warut a am vingt quatre heures bu mu lu bokk ci alquran non da xam ne yow mu teg koo jàng alquran te njàng ma doon ay kaamil yu ñuy wàcce kaamil bu àgg nga tàmbali beneen kaamil ba fi ñu koy tàmbalee ak muy àgge mën naa aju rek ci sa jamono boo ko mënee def ci semaine baax na soo ko mënul te mën ko def ci ñaar fukki fan baax na koo xam ne kii mën nga ñaar fukki fan ak juróom ñu ne nga wàcce kaamil baax na waaye nag lu mu tàgge tàgge tàgge xanaa mën nga weewu nga wàcce kaamil waaye nag koo xam ne kii alkool yi mu def leen ñan ah yàlla tere nga fas yoosu loola te mooy yow alquran xamoo ci dara te jéemoo see xam dara ah wala loolu loolu daal dëgg dëgg ëpp naa def ak jullit daal day jàng alquran te ka daara ndax xam ngeen daara jullit daara jullit mooy kaw suuf rek mi ngi tàmbalee ci ndoo ba ci jàpp feeg yaa ngi julli yaa ngi ci daara bi ab julli fu mu toll taalibu ilmi la ñu la war a doon bokk alquran bi yow ni nga xam ne wàcc nga alquran mbaa mokkal nga ko mbaa miin nga ko santal yàlla di wàcc ay kaamil te bul dem di sa di topp ak ñàkk jot di tax ngay seen laa jàng alquran yow ni nga xam ne nag yàlla dogal na la nan nga jàng jëmboo alquran da ngay fexe ba bis bu ne nga mën ci alquran donte donte genn wàllu xëpp genn wàllu xëpp kan natt la koo xam ne si bis bu ne mu jàng juróomi liin ci alquran juróomi liin waaye nag du mànk su ko mokkalul dana ko jàng ba miin ko ba yàq ko ba nga xam ne bu ko tiimee dina ko mën a jàng bi ñaata liin lay am fanweer xam si koo xam ne semaine bi ne ma am fanweer dina juróom weer wi ñaata lay am weer weer bi jigéen ñi ñu fanweeri yoon cent cinquante téeméer li ñu ak juróom fukk téeméer li ñu ak juróom fukk loolu tabarkalla téeméer li ñu ak juróom fukk téeméer ak juróom fukk ku si dina juróom am téeméer eh, fanweer lay wax da am juróomi sunu da am nisif ak tuuti koo xam ne ki weer wana nga am juróomi sunu nisif ak tuuti ah baat mi jeexee ndaam juróom benn xisib weer bu ne nga am misis ñaari weer ñu ne xisib la xañu ak muram ma dafa jege ba de balaa yàgg nga miin alxuraan lépp di ko jàng te doo yàqal day sa liggéey bu ngeen demee da ngeen di seet loolu waaye nag dëkk kaamilu yàlla bi te doo ko jàng mukk yaakaar ne sa doomu ko war a yow doo ko jàng doo ko jàng loo sa jabar boo xëyee rek toog fitne Ndakaaru jeeg fitne te ngay def fitne paas ci rek fitne liggéey yu bari yi di sartari rek di daw ci ginnaaw àdduna rek déedee bett kat déedee bett te kat alal ji dee di ko yóbbuwaal alal ji dee di ko yóbbu de kër kër kër bare bare bare dañu ubbi compte banque daa dem carte jënd kër daa jënd wet kër kër kër kër kër ba duufal compte ba mu duuf da ngeen teg sa at war a nga bàyyil fi lépp looy benn yi gone ko nga nekk ci biir suuf gone yi ci biir kër gi di ferek coono yi nga doon sonn pour am alal jooju gone yi xamuñu ko ñun xam daal mooy daal fekk nañ si alal bi seen bàyyi liggéey rek ñu nekk ko mu jeex te kat bàkkaar bi ci gone yi def yaa koy gàdd yaa koy gàdd ndaxte yàlla lañ ko fa dogale ana ko ko fa dogale yow ak jullit koy taw mu liggéey liggéey leen jullit yi dañoo war a am doole waaye def di seet ba xam nit bi doy alal ji alal ji def ci jaamu yàlla def ci jihaad fi sabilillah man sañoon tama ñu am ci yéen as nag balaa déwén mbaar mi ñu tabax mbaar mi fi mu jàngoo ñu yàggut kenn nekk fii di bàyyi imaam mbay ñang ak oustaz Hamidou Dia Dia ñuy yelwaan par ay ñaar dërëm ci juróomi dërëm te ay borom barke ñëf borom xaalis ñëf ñu ngi suñu سيدنا محمد بن جوان البلدي سيدنا عثمان بن عمي بن ربي يال سن تبخ تبخ لن دار من ريال بفكة أمنا سيدنا دكار جيب كو دك كارد بي ما سيدنا جيب كو دك كارد بي تما دف من ريال لن يوفي لاي بي بي جوخ كو متوخ كو لت من ريال نغرف تجين دي جمع تاني سن دك لول تبعي سرخ اينا دل مخدوري نعم. بي alal bi def koy liggéey ku amul ku liggéeyul doo a dafa dara waaw kon kenn contesté wu nit dem liggéey waaye nag liggéey ba àggal yër ko ca ba dee wacc ko fi jihaadoo ci jaamuwoo ci yàlla dimbuwoo ci mbokk dee bàyyi ko nga gàddu bàkkaar ba man mu ma tax dox loolu tamit naa bàyyi xel ala kulli xaal alquran koy jàng te bari liggéey bi fee nga jàng alquran يمنتني صلى الله عليه وسلم يعني اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه لأنه من يمدن القرآن نخت القرآن قط بن اليوم ألت برم أصحاب أيمنه القرآن بن اليوم ألت برم أيمنه مسلم ما قصر نكتع القرآن بالآخرة بين نسمه bu doxee ba yem ci oustaz Dia ah sama borom yàlla kii de moom kii de moom jàmbaar la woon ci jàng jàmbaar la woon ci jëfe li nga santaane ci man kii de tin na ci moom yàlla na ko tin naa ko. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار رواه ابن حبان